li ma yoon may xam nañu ko trophée bi buñ ko jox kenn ndax lundi dañu dogal suñu recours. merci si daan na ko jël bu leer. waaw xeexuñu ko loolu jëpp. nga ne lundi dañuy dugal recours bi lan la moom dafa teg carapé wala dafa teg épaule la sam leer na daan ko jël bu leer contre la Daguerre match ni la waroon a am ñu àtte ñu lu leen neex. bii am nañu ndam nañu jox suñu ndam. suñu couronne nañu ko jox suñu couronne mooy suñu daa mel ni daa mel dafa am xeex si côté. non non ba may wax gëmuñu ma mais si te benn mbër mënu ko ba may wax kenn kenn gëmu ma mais dama ne combat ak Zarko bam ko daane laa ne si te ku mënta rek amul. waxuma ay waxu caaxaan mais mais taxawaay bi Siteu gis nañu guddu gis bi yàgg na taxawaay bi yàgg na lan la ak waa coow la dañoo amoon surplus trois personnes alkaati yi ne duñu ñu ko may mu jàll te CNG toujours nga gis mbër am surplus ñu dagg la bu ko defee sanction lay doon bi yoon ñu bañ Siteu nag ñi mu ànd ak jóge village ñuy ay sëriñam mu ne du dem bàyyi leen. yow gis nañ tamit si biir géew bi Siteu nga jékki-jékki daw daw dugg si biir géew bi ñëw ñëw si muy yére wu soloon lan la da nga. li ko waral tegtal rek bii da koy sol sottee koo gaa laaj après da koy lem xool. tegtal yooyu lañ topp bali la dogal waaye man musuma gëm ne Siteu moo doo man musuma gëm ne moo dàq xeex musuma gëm ne moo dàq bëre seetlu leen samay interview bañ jëlee en combat bi ba léegi loolu laay dama xam Siteu xëy na te ñeneen ñi xamuñu ko. mais ñii xam Siteu xam na ne Siteu ku ko dàq bëre newul ci làmb ji. gis duma ko changer parce que bi ma yor man xam naa ko. noonu la demee kaay xamuñu ko buñ ko seetaan mbabat da ngay xam ne Siteu buñ ko xamoon boo ko seetaan mbabat ñu ñu ko topp premier combat mbabat ba nii barki moo xam ne nga xam ne mënuloo naa xamare mais lamb nag ku nekk li ngay waxee yaa xam yaa yoo la concerné mais ñun xam nañ ñun yor barki Mouhamed Mbër Kamil la kenn mënu ko bu paree kenn mënu ko am nay mbokk am nay xarit tey lamb ji ah, da nga ci jëlee mbetteel wala lu mu demee noonu garaaw ji amuñu bett barki mu xam naa amuñu bett mu bañ a liggéey mais dafa dem dafa lëlu dem liggéey suul tànk bi mu ñëw ma ñëw ma ñëw këram ma ñëw këram mu ne ma yóbbu barki Mouhamed Modou Lo lu koy moo ngi ci man. lan mu ne ma boobu Modou Lo lu may daal lu koy daal moo ngi ci man. noonu la demee. dama ne samay 4 millions ñàkk ma ko. lu leer nañ laa ko démb TFM ñàkk ma samay 4 millions. lamb nañ bàyyi yëfu naa fekk kii dama ñëw si lamb ji ñu téye ma fi une heure de temps Sénégal yëpp gis li ñu defoon boo ñaar li ma boo def. Siteu ay xale lay àndal daa màgg Modou loo bu dee góor dëgg yéen xam ngeen ni daanu na mais loolu suñu liggéey mais yéen xam ngeen ni Modou Lo daanu na mais man 6 000 samay 4 millions ñàkkuma ndeyam bii ba sama bakkan bi na nga ma suul ñàkkuma samay 4 millions Modou Lo daanu ma. samay 4 millions jarakaay jara la demee ndeysaan laa mu ji metti woon na laa mu ji metti woon na gars yi nee nañ ñàkkuñu seen i 4 millions loolaa dégg ndeysaan xoolal gars yi ba ñu ngi si. raaga. mais dara daan nañ ko. wala da ngeen ko daal def nga bëre non daane baax na daanal rek. Babacar mais jàpp nañ ne ñoo daan. da day dem day dem def li ko yoon may loolu suñu doon néegu ji moom bu daanee moom kadapi na bu yàgg avant mu wut agsi te Mourou deful kadapi. billaahi. mais aada nga ni. Mourou xaajul bay def kadapi sax xam nga làmb ji gars yi dañu war a waxtaan bu fekkee Siteu nii la bëgga a bëree carrière am xaas min xaas nga niil dem toog plateau wala nga daw ban dal la par avertissement nga tok palaat on champion nga bobu champion bu de wa jam gën mom lañ yaakaar dañ bar keneen mo ñu pere pour dan billahi wallahi wa taalaahi làmb ji deug la de jekku na ci lu bari mais wul pour dan yéen xam ngeen li du beure làmb dafa am yoon da làmb dafa am réalité mais mbër boo xamante da ngay ñew duma ma suñ paree nga dem do tok bu suba nga wax wax wax wax loy wax ne da ngay daan ndeysaan alaaji Mor ma ngi lay ziar ah ma lay jëloo ziar maa lépp di sant suñu borom baax baax. tay Modou Preneur diggante aussi ta am décision par décision arbitre ndam. sant yalla baax di sant bi sant suñu ñaar wayu sant suñu yaakaar àdduna alaaka mi sëñ Babacar Si dañ ñëwoon di ñaan yalla yalla mañu ndam yalla mañu ndam ndam noo ko amee baax na. lamu tay bi ko xol gis mo nu ko bëree nan Modou jambar la ndax ndax so dafa bari tay nii la mënoon demee ñun béy ñoo xam ne lépp interview mo def man lu mu di xew loxo mu la la yëkkati boobu ñu xamna fiñu jëm ci ba ba ba ngay wax amna lu xew. lu mu tàmm yëkkal loxo Modou Lo la yëkkati lan la woon. waaw boobu dañoo gisoon lu si xew gis xam nga bagage yu bëree bëri. ñu bëri dugal seen loxo si combat bi nii mais sant nañu yàlla bu baax a baax ba roi bi ñu waatee parcelle ak lu mu ti xew tey roi parcelle mën a faan jàmm am. kon ñu seen loxo si làmb ji. ñu bëree bëree bëri bëri billaahi ñu bëri mais sant nañu yàlla bu baax a baax a baax neewoon naa leen tey histoire bi depuis combat bi commencé na arbitre bi depuis combat jeex na loxo Modou Lo la yëkkati sant nañu yàlla bu baax ba ndam li faa ne waatee parcelle Modou Lo day bàyyi la roi des arènes barke Cheikh Tidiane si côté si côté si côté mystique si non mu ne kenn mu ko jàpp si mystique xëy na bisom doo nekk na mu tey nekk sa jouram si la tamit dëggul boppam si biir géew bi si la boppam kon leen la ñuy wax mais lam yëpp da ko daw si fekkee ñu lay bëree dootul daanu da ngay doo daan ñi lay bëree mais ñu koy encouragé bu baax soo ma dee ko ma yàlla may moom suñu xarit la du ñu sekk DG lamb la li ñu doon wax yëpp kaf di fooji ree mais tey yàlla may na ndam mu doo baax a baax jërëjëf waaw tawfeex Youssou naa la tey Youssou Ndiaye man aw ma bës sax nga naa ma bës laa bëgg luy bës lan mooy moo gën bës dégg nga moo gën bës dégg ah, yàlla man sax yaa may daaneel ak Paulis jaamu si yow rek dégg doole séebu la. tey Giro ñu gis seen grand frère Modou doon bëre yéen waa passé lépp ngeen ne si ginnaaw ñu tey mu daan si te par décision arbitre. yàlla moo ko tuddee noonu ñoo ngi sant yàlla bu baax. billaahi lam moo demee noonu quoi si te mbër la Modou mbër la mais ñoo ngi ñaan xam nga waaw affaire daal noonu la mënoon demee ndam bu seddu guy incha allahu rabi. bisimilah ñu gis nu Modou bëree nu Modou bëree xaw leen si am benn benn benn benn benn non moo demee noonu lam moo demee noonu waaw lam moo demee noonu incha allah billaahi billaahi moo loolu. ay da ndeysaan Guiro Seras. nee na loolu dañuy dugal recours bi lan la moo dafa teg karaap bi. dafa teg mag épaule la sam leer na daan ko jël bu leer contre la Daguerre match nii la waroon a am ñu àtte ñu lu leen neex bi am nañu ndam nañu jox suñu ndam. nañu ko jox suñu ndam daa mel ni daa mel dafa am xeex si côté. non non ba may wax gëmuñu ma mais si te benn mbër mënu ko. ba may wax kenn kenn gëmuma dama ne combat ak Zarko bam ko daanee laa ne Siteu ku mënta ba rek amul. waxuma la ay waxu caaxaan. mais taxawaay bi Siteu gis nañu. guddi bi yàgg na taxawaay bi yàgg na lan ak tardivement bi. waa coow la dañoo amoon surplus su trois personnes. alkaati yi ne duñ ñu ko may mu jàll. te CNG toujours nga gis mbër am surplus ñu dagg bu ko defee sanction lay doon bi yoon ñu bañ Siteu nag ñi mu ànd ak jóge village ñuy ay sëriñam mu ne du dem bàyyi leen. yow gis nañ tamit si biir géew bi Siteu nga jékki-jékki daw daw dugg si biir géew bi ñëw ñëw si muy wu soloon lan la da nga. waa li ko waral tegtal la rek bii da koy sol sottee koo gaa laaj après da nga koy lem xool tegtal yooyu lañ topp bali yàlla dogal waaye man musuma gëm ne Siteu moo doo man. musuma gëm ne mo dakh xex musuma gëm ne mo dakh bëre sétu leen sama interview bañ jëlee en combat bi ba légui loolu lay wax. dama ne mosoo gëm ni Siteu moo doo moo xamal. dama xam Siteu xeyna te ñeneen ñi xamuñu ko. mais ñii xam Siteu xam na ne Siteu ku ko dàq bëre newul ci làmb ji. ba nga jëlee avance ba léegi ni nga doon waxee ngay waxee. non du ko changer parce que poulain bi ma yor man xam naa ko. noonu la demee kaay xamuñu ko mu ñu ko seetaan mbabat dañ leen xam ne Siteu bu ñu ko xamoon boo ko seetaan mbabat ñu ñu ko topp premier combat mbabat ba nii barki moo xam nga xam ne mënuloo naa xabaree mais lamb nag ku nekk li ngay waxee yaa xam yaa yoo la concerné mais ñun xam nañ ñu yor barki Mouhamed mbër kaamil la kenn mënu ko bu paree ko am nay mbokk am nay xarit tey lamb ji ah, da nga ci jëlee mbetteel wala lu mu demee noonu garant ji amuñu bett barki mu xam na amuñu bett ma xam laa ko doon a liggéey mu ñëw ma ma mu ñëw ma ñëw këram ma ñëw këram mu ne ma yóbbu barke Mouhamed Modou Lo lu koy daal moo ngi ci mu ne ma Modou lu may daal lu koy daal moo ngi ci man. noonu la demee.